maanaam Moussa dafa wax Xodar ni ko nag loo may dénk ma yóbbaale ko Xodar ni ko li ma lay dénk mooy bul dugat mukk di dox lu dul itte mu ne ko waaw mu ne ko dénk naa la nga moytu coow lu bari mu ne ko waaw naa la nga bañ a ree ci lu amul xorom lu ci mayoo bul ree mu ne ko waaw mu ne ko dénk naa la it bul ay bale ci moykat yàlla ci mooy dañuy mu ne ko na ngay set set mooy yàlla ay ñaar def nga di ko jooy mu ko waaw mu ne ko bul yeexe ci gisu tey ba ëllëg maanaam jëf lu mu dara jëf tey bul naa ko bàyyi ba ëllëg loolu daal